même yéen jigéen bokk ñëpp dañoo war a xeex mbas mi euh, campagne vaccination bi dafa baax lool kenn du ni ko vacciné wu affaire bi du la dal mais su la dalee it du danger dana atténuer lu bëri moo tax ñun ñëpp ñu war a fexe ba sunu mbokk yeeg sunu xarit yeeg sunu dëkkandoo yeeg yëpp ñàkku làmb ji gis ngeen ni mu ko impacté ñu ngi nii reporté ko et avec juste raison aussi làmb neex na lool xaalis neex na lool mais bakkanu ni ñi moo importance euh, ni ñu ko reporté nii sax bokk na ci sensibilisation bi tax na ba ñëpp xam ni war na ñàkku feebar bi war na fay jógee donc euh, ñuy ñaan yàlla rek feebar bi wàññeeku autorité yi comme l'a di tout de suite monsieur le su wàññeekoo ñu évaluer xam ni affaire bi mi ngi wàññeeku comme le président Macky Sall jëkkoon a wax ni vivons avec le virus bi mu couvre-feu bi yàggee parce que nit ñi foog ñu liggéey te ñoom xam nañ loolu léegi nag euh, ndimbal na ci fekk loxol borom na nit ñëpp vacciné wu ñu ñaan yàlla mu wàññeeku ñoom ñu évaluer ñu xam ne affaire baa ngi wàññeeku ñu libéré promoteurs yi même su doon à huis clos ñu def ko. ñaata laa ci. non non non ma dara man bakkanu nit ñee ma gënal per ma dara la perte et lamb ji lamb joo xam ne ñëwagul nga ni perte yooyu yaa ngi wuti affaire bi ak nga ni ngay nu dara bakkanu nit ñi moo nu gënal lamb ji fukki yoon ak juróom le contraire man dama soulagé wu dinañ ko euh, dafa ne su ñëpp ñàkkoo. man li man xam naa ma moo nekkoon le li mu wax. bu leen di transformé toujours waxu jàmm. parce que benn virgule rek mën naa changé phrase. dafa ne suñu évaluer mu gis yëf yi wàññeeku. te xam naa ne suñu évaluer normalement ak rythme bii ni ñi jël dana wàññeeku. su wàññeekoo ñu libéré nit ñu tëgg ñun pare nañu pour tëgg mais à condition nag. que état joxe feu vert ñoom ñi nga xam ni autorités sanitaires yi ñoo xam fan la affaire bi toll ñu wax ñu ñu mais sunu bëgg-bëgg rek du tax ñu tëb di tëgg làmb comme ça ba nit ñi mën cee yokku di dee wala di fen ah non euh, ténor yi est-ce man par exemple premier mois ba laa ñàkku xëy na ñàkku nanu de façon ténor bu ci ñàkkuwul man bërki démb Bombardier envoyé na ma benn vidéo muy ñàkk Balla Gaye Balla Gaye sama kër la ñàkkoo yaa quatre cinq mois départ ba donc euh, ni ñaa ngi ñàkk kuy euh, et puis comparaison n'est pas diw ñàkk na est-ce que diw ñàkk na yow dem nga ñàkk rek ñàkk say kër ñàkk ko xam nga ne ko ñàkkul. waaw mais bu ñu ñëwoon jëmbal bés également. Ah, non d'accord mais ñëpp xam na ni wax yow yaa ngi ni yow rek mën koo jëma presse bii rek fi taxaw. jëmal na ko presse bii fi taxaw ñoo ëpp importance fukki yoon ak juróom mbëri ñoo ëpp importance promoteur waaye tëral est-ce que avant ñuy renvoyer combat yi waruñu woon a mën a xalaat bëgg trouver solution mu bàyyi ba foo mu combat ñu doog a trouver solution. mënuñu ko bàyyi leen bu leen tooñ CNG kii affaire ordinaire CNG mënu ci dara CNG dañ leen fay teg rek waaw d'accord parce que ordinaire ko. dañ ko wax li ko wax lay mën a wax non mënu koo xalaat parce que CNG n'est pas habilité di xalaat état dafa am yoon dafa fu koy teg yow mi mënoo xalaat rek xaw ma ban organe nga nekk mais mënoo xalaat def la neex dañ lay dicté li ngay def dañ lay jox ay instruction merci